tëjee ñetti at ci kaso bi laaj ma 138 milliards ma génn ñu réviser waat projet bi nee ma li ma def defu ko la première chose mooy que je porte plainte contre l'État du Sénégal pour ñu dédommager normalement bu dee dañu réviser ce que je suggère à Karim mooy que ne porte plainte contre du Sénégal parce que préjudice bi à moins que bëgg nekk candidat rek mën a effacer préjudice boobu donc on est dans un pays boo xam ne dañu jël ay président jox leen ay ndomba tànk bu ñu leen joxee ay ndomba tànk ñu dem ba ci biir gëm loo ñu ne lii dafa am procès am ubbi procès ñëpp di ko seetaan am ay doomu sénégalais yu ñëw ñu laaj la yow fekkee nga nga nga wax ni ci xalaat ñu am ñu ñu convoqué wax wax wax wax wax wax ba àmbale sénégalais yëpp ci benn jël Karim Wade dañ ko ci ci kaso bi ni ñu ko bëgg a réglé nii pour man dafa dafa dafa c'est c'est dafa léger il faut que ñu am plus d'informations parce que encore une fois si benn régime dafa jiiñ que ni nit benn nit moo jël plus de cent milliards dans un pays comme suñu bos bu amul doole bi ça il faut que mu ñu éclaircir ko soit l'État nous a emballé sur un si dara il faut ñu xam le Sénégalais doit savoir est-ce que président Macky Sall objectivement c'est parce que pour man bu ñu nit dara jël na ko mooy que gars yi xayma nañu. exactement lan Karim Wade ñaata ñaata bien la la état bi saisir bëri na non qu'est-ce que ça devient loolu dañ ko koy delloo. non non c'est une question que je pose ah c'est-à-dire que li ñu jël ci Karim Wade yëpp état da ko koy delloo parce que bu ñu waxee waxu révision bu ñu waxee que ni arrêté bi la ñu attaqué ça veut dire que ce truc il est nul da koy delloo li ko war a yore wala non ces questions là duñ ko poser. c' est pas une histoire de da nga bëgg a nekk président quoi à la limite ça daf may revenir loo ci ci ci ci li Khalifa Sall waxoon mën naa bokk rek ko mais au nom de quoi on a perdu beaucoup de temps beaucoup de milliards ont été investis ñuy am ay ay commission rogatoire xaw rogatoire xaw ma gars yi du wër àddina bi lu ne ñu def ko àddina bi yëpp bi ñu si pendant des années on vient si benn entre des gens qui sont si benn bureau ñu jékki-jékki ne ok affaire bi maintenant kii éligible na dugg na fi génn fi à am na ay sax ay précédents yu ñu yu ñu commencé créer yoo xam ne ëllëg dafay indi ay problèmes parce que dans l'histoire de ce pays la je ne pense pas que mës nañu jiiñ nit mu détourner autant d'argent jiiñ laa wax nag musul am dans l'histoire de ce pays la mais qu'est-ce que ça devient c'est l'État qui nous a vendu du vent wala c'est l'État qui essaye de d'effacer quelque chose boo xam ne bu dee dafa am kenn waru ko effacer on ne peut pas vouloir une chose et son contraire aujourd'hui bu ñu nee dialogue la première chose pour man ba nit bu nekk bu ne nañu xaar conseil constitutionnel presque complice nga ça m'engage parce que tout simplement ci lu ñu xam ci histoire c'est Afrique ah à chaque fois que des problème comme ça mm. nit yi président yi dañu jàll d'autant plus que le principal concerné muy le président de la république moom nee na maintenant que le débat juridique ne sa pose plus moom soo am rek la mais xam nga nit bu waxee loolu c'est le la plus haute institution du pays qui dii ko maintenant le débat juridique te waxeewu ko fii daf ko waxee Europe loolu ça veut tout dire léegi yow après nga jékki-jékki nga ne société civile nga si ku mu ci mënti nekk ci société civile moi pour moi tu n'es pas euh, la société civile leneen nga parce que parce que parce que xaaral rek parce que parce que mënuñu mënuñu contourner affaire bi. c' est pas ce dialogue là c' est pas la réhabilitation de Khalifa Sall et de Karim Wade qui va faire que Sénégal dafay calme. pour le man de si sama xalaat. il y le problème reste entier. qu' est ce qu'on qu'est-ce qu'on en fait et si le président revenait et mu ne man finalement du ma présenté wu. qu'est-ce qu'on fait du problème de Ousmane Sonko parce que c'est de sa qu'il s'agit ah loolu moo tax dëkk bi yëngu. tout à fait taxul dëkk bi yëngu. Mm. du Khalifa Sall du Karim Wade dëkk bi dafa yëngu c'est entre Macky Sall président Macky Sall ak Ousmane Sonko. Mm. bu dee keneen ngeen wax ma ko. Mm. si on dégg naa ñu ne ñu ne il faut le respect des institutions waxi violence affaire euh, de mars deux mille deux mille euh, vingt et un Khalifa Sall n'était pas avec avec ak Barthélémy Dias nekkuñu woon avec euh, Ousmane Sonko. y a eu des est-ce qu'ils sont sorti pour condamner ne gars yi bu ñu nee parce que c'était quand même xanaa tey la leen arrangé de mars 2021 dëkk bi dafa yëngu. te ñoom euh, ci xeex bi lañ bokkoon. ñoo doon boucler Ousmane Sonko bi ou non. nañu waxante dëgg. ah non non ba léegi non je suis pas je suis pas non pour moi. pour moi sama euh, ça m'engage pour moi aujourd'hui par rapport ak acte yu yu nit yi posé je peux même avoir la perception d'un d'une très très grande coalition je je je je veux dire que acte yi euh, Khalifa Sall di ak acte yi PDS di posé ils sont beaucoup plus pro, proches de Macky président Macky Sall que de keneen parce que aujourd'hui comment on peut tout simplement se baser que sur des élections présidentielles yu passé 2019 si Idrissa Seck mais Idrissa Seck il a posé des actes yoo xam ne war na mën a tax yéen seen bopp ngeen war a xam ni affaire bi y problème parce que Idrissa Seck n'est pas resté opposant pendant toutes ces années il n'est pas resté il est dafa dem bokk ci mouvance présidentielle bi pendant deux ans trois ans mais c'est du ça c'est du concret donc quanti tu tu reviens et jusqu'à présent il a présent amul benn acte bu fort bu posé bu bu bu euh, sorante entre Idriss président Idrissa Seck ak ak ak ak ak président Macky Sall amul benn acte bu ñu posé à la limite ils toujours assez proches les gens bu ñu nekkee dañuy reetaan dañuy xaxataay dañuy kii acte bu kii posé PDS depuis ñu wax waxi euh, Karim Wade bi boobu ba léegi acte bu ñu posé rek. dafa dafa jege euh, kii bi nu mu tudd dafa jege li li li kii li li. Euh, le camp du pouvoir le, le camp du pouvoir. et malheureusement c'est Mimi Touré qui en a fait les les, les parce que ci histoire u position wu Mimi Touré ak si kii ça se comprend parce que aujourd'hui ennemi bi mooy que j'ai l'impression que le PDS. du mës a baal Mimi le fait que mu nekkoon ministre de la justice. de faire preuve de mauvaise mais non non non damay eggale rek ah bi ngeen wax ñun ñëpp a déglu non non non xaar bàyyi rek. non dama ne musuñ pour man. pour man musuñ du ñu baal Mimi li nga xam ne moom na ko te Mimi Touré président Macky Sall moo ko fal. alaalim mm-hmm. bi mu paree daf ko pro daf ko def promotion comme li ma doon wax. aujourd'hui dañu war a wax lu clair dialogue bi pour moi taxawul gars yi ils ont créé les conditions pour que ñu wax soi-disant dialogue en se basant sur ça régler problème mu Khalifa Sall ak Karim Wade et ça reste loolu benn affaire mu le problème reste entier moi j'aimerais bien interpeller le président de la République pour qu'il nous explique pourquoi ñu ma bëgg a jël affaire bi rek effacer ko et question yi ma fi posé nii de ça qu'est-ce que deviennent les cent et quelques milliards moi j'aimerais bien savoir est-ce que si je dois cent et quelques milliards 138 bon su ma nee bu ñu ma nee 138 milliards nga yore est-ce que war naa mën a trouver moyen pour nekk candidat ci élection présidentielle je ne pense pas qu'est-ce que ça devient c'est des questions yoo xam ni le Sénégalais lambda il a envie de savoir parce que quant tu dis au nom du peuple diw Badara Gadiaga bi luubal na lu réew mi à hauteur de cent et quelques millions. c'est milliards non Charles fay bokk Charles du bañ loolu léegi man damay bëgg a xam après qu'est-ce que ça devient c'est pas c'est pas quelque chose bu ñuy ranger ci ci ci ay tiroir parce que mooy mooy li ñuy wax que ni suñu suñu suñu président yi ils ont trop beaucoup trop de pouvoir ils ont beaucoup beaucoup trop de pouvoir et on n'a pas besoin de ça amul beneen yeneen yi fi wax yëpp ay way euh, euh, parrainage bi kii na nii dugg na fi génn fii le problème il reste entier pour moi tey jii nii ku war a toog ak président Macky Sall la condition sine qua non la première question qu'il faut mettre sur la table et moo war a jël le truc mooy que président Macky Sall du ñu xaar ba conseil constitutionnel di kii di kii di di di di di kii amuloo droit bokk ci élection présidentielle yi mu nekk parce que tey jii ni foofu lay tëjee si tu donnes le choix o conseil constitutionnel mu waaw waaw mais xaar ma egg la Sadio bàyyi ko. waaw waaw mais non. waaw mais du concept de. ba may wax. Ah. waxuma pour conseil man damay wax lu ma xalaat. après ah. mën nañu kii dama ne. Ah, dama ne tey jii nii bu dee c' est avéré que dañu ne. bu dee c' est avéré. Mm-hmm. que ni la nu mu tudd la décision. c'est la le conseil constitutionnel moom dañ ko jox. Mm-hmm. pour mu def ko. Mm-hmm. bu dee c' est ma ni bu dee da nga ne conseil constitutionnel yow yaay décider si président Macky Sall war na am troisième mandat war a woon ko am bés bu nee war na ko am bul génn ci mbedd mi di ko kaas. c'est contradictoire quand tu donnes la responsabilité à une personne de juger ne ko yow yaay juger ndax président Macky Sall war na dem war na dem bés bu bës bu ne war na dem je ne veux pas te retrouver dans la rue et loolu ça me ramène ça me ramène sur les fameux propos de Barthélémy Diaz ah dañ ci dellu si hmm. moom moo théorisé moo wax ñëpp dégg que ni bës bu président Macky Sall ne dafay def troisième mandat sénégalais bu fi génn truc ma xam ne nen ginaaru kenn nenu ma ma xam ni da nga yëpp sénégalais yi loolu du Bouba Ndour a ko wax du Badara Gadiaga du Charles Faye mi ngi fi et c'est une question très importante donc tey jii nii bu ñu nee euh, conseil constitutionnel moom mooy décider de euh, la Macky Sall président Macky Sall war na dem wala du dem képp ku ko ci def ah fexeel ba bu conseil constitutionnel ne wii day jàll vraiment bu ñu sonal fi nekk ci mbedd mi naan dangay ngay kaas non dëgg la parce que du am benn crédibilité te li malal wax dafa am solo il faut que nit ñi comprendre que ni les gens ne sont dofuñu quoi am na loo xam ne soit da koy da nga koy assumer boo nangay ngay parce que c'est pas un point boo xam ne ni ngeen leeral ni mu leen leeree si. kaawu président Macky euh, taawu Khalifa Sall ak Karim Wade noonu ngeen war a amee la ñu war a leeree ñun sénégalis sur le sur le problème de la candidature du président de la République mais c'est comme si c'est c'est moins important que que éligibilité Karim Wade wala wala wala Khalifa Sall je ne dis pas encore une fois que Karim Wade dañu ko war warul éligible waxuma euh, Khalifa Sall warul éligible dama ne on a besoin de réponses parce que dans dans si élaboration affaire il y a beaucoup de choses man en tant que sénégalais je veux comprendre xaalis bi fu muy mujjee di nga ko jiñ est-ce que la décision la bu fekkee ni dañ ko revoir mooy que Karim Wade defoo dara su fekkee ne Karim Wade dañ ko ne defoo dara état bu Sénégal defoo dara dama koy encourager mu dem porter plainte contre l'état du Sénégal parce que bu boobaa leneen la ñu wax nan wax fa dëgg la yàlla c' est pas un problème de candidature donc le problème il reste entier mais man pour pour man je reste persuadé que ce dialogue là amul benn njëriñ lu dul <laughs> essayer de trouver euh, ay brèche pour que ñaar ñu bokk ci élection yi Badara